Thank you. sëñ bi ñu présenté leen rek suñu mbokk journaliste yi nga xam ne sëñ bi moo ñu boole ak ñoom ñuy liggéey ak ñoom ci wàllu tasaare euh, liggéey bi ñuy def ndax ci barab bu xat lañ koy defe waaye liggéey bi war na àdduna loolu nag ñoom ñi suyee nañ ci rol bu am solo médias yi nag yi fi teew yëpp bari na lool waaye ñu jéem a tënk rek ñu jéem a tënk rek ni ñu ko waxee maa ngi jàkkaarloog ki ma gën a jege muy Baye Fall Modou Ndiaye Baye Fall Matar Ndiaye Baye Fall waaw suñu xarit borom bagage yi nekk Touba Fall FM di rajo sa xarit sëñ Cheikh Ndigal Fall euh, xamee nañ ci itam waa Ocean FM Sawru Diagne moom it di suñu xarit di suñu wëllëre ñi ngi jokkoo ñoom ba Dakar lañu ne ñu xàmmee ci jotaay bi wëllërewu kër gi sëriñ Mortala Fall mu yabal fi Muudu Moxtaar sëñ Muudu Moxtaar Diop ak sab soppe sëñ Sadda Ñang euh, moom sax tey am na émission bu am solo bu muy def boo xamante ni yow la ko duppee waaw moom la moom sëñ Sadda moom première semaine moom la sëñ Muudu Moxtaar àndal ñu ñëw teewal ci waa Benno FM bépp site yi fi teew itam bari na trop site xibaar xibaar euh, site euh, ahibaayil xadim bi nga xam ni euh, moo lëkkale mooy site bi nga xamante mooy site bi lëkkale njabootu sëñ Moustapha Mohamed ca nekk ci biir ahibaayil xadim yor seen lépp lu jëm ci wàllu information ci luy tasaare liggéey bi sëñ Moustapha liggéey ànd ko njaboot gi ànd koog islam bi ñoom it yabal nañ ci sëñ Moustapha moomu moom it ñëw na fi suuba léegi def na fi jotaay bu taxawaay bu am solo sëriñ Moustapha kan lañ moo moo moom lañ yabal euh, sunu info teew nañu fi Thierno Faye RDV suñu xarit nekk foofu ci Dakar soxna Mami Thion di def émission bu am solo moom it teewal yab yable fi euh, moom it ñëw nañ ñu ngi ci ñu ngi ci biir jataay bi Cheikh euh, Gaye Ridial Bawal Bawal Média moom it ñëw na teew fi ak Serigne Mbacke Serigne Mbacke Murit Info moom it ñëw na teew na ci jataay bi ak Serigne Mbacke Murit Info waaw ak Serigne Moussa Diop ICAT FM moom it di suñu xarit teew na ci jataay bi Serigne Ablaye Faye Murit TV moom it mi ngi ci jataay bi Serigne Ablaye Faye Murit TV ñëw na ci jataay bi ak Serigne Abdou Diop Yeete TV timis acte point net macha allah teew na ci jotaay bi Zik FM Zik FM Serigne Khadim Diop waaw moom fi la yem waaw moom it def na fi liggéey bu am solo ak ba amul benn organe buñu ñu fàtte rek 28 pro waaw ak suñu xarit 2STV yi ñoom it ñëw nañ fi pa ak TFM ak TFM ak SN xibaar ak Sen TV ñoom ñëpp teew nañ ñoom maanaam presse bi nekk ci ci ci réew mi yëpp daal mun nañu wax ni sëñ bi teew nañ eh, Pape Sayar ñëw nekk fi waaye nee na yi dina ñëw waaye ñoom ñëpp benn famille lañ ku ci am image rek lu ci sa moroom soxla da nga ko jox ñun xam nañ ñoom ni ñu liggéey ak Lamfal Lamfal waa Lamfal itam teew teew nañ fi 2STV seen TV TFM ñoom ñëpp ñëw nañ eh, ak DTV TFM itam comme RDW sëñ sa RT RFM suñ sàmm mi dafay liggéey dañuy jàppale trop ci communiqué yi communes yu bari ñu ngi koy jàllale ca duñ ci fay dara ca bu ñu ko doon fay xaalis bari lañ ciy ja lañ ciy lañ ciy ñàkk kon loolu moom faaw ñu seere la ñun ñuy yore mbir moom kon loolu mooy li fi nekk sëñ bi itam dafa sàkku euh, waaw sëñ bi itam dafa sàkku itam ku ko man ci yéen rek euh, bu ñu yóbbu ndogu yi ba ñëw ngeen ñëw dogo fi waaw loolu da ko sàkku ku ko man rek euh, fàtte itam sa xaritu bopp sëriñ moo faa sa mbay moom mi nga xam ni moom ñun ñëpp xam nañ ni mu demee ak yow moom it suba ba léegi mu ngi fi kon sëñ bi lii mooy kàddu yi ñu waroon a yi ñu waroon a leeral mbooloo mi fi teew lenn li ci des ci kàddu yi nag dañ la koy bàyyee lu matul rek nga mottali ko leneen li ci des lu ñu war a sara ñu bàyyi ko ba màggalu Cheikh Amdi Seck di jàll ñu yaatal jataay boobu waaw bisimilah. rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullah. bokki jullit yi bokki taalibe yi seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe Cheikh Ridial Seck Gëm Bàmba mu ngi yëkkati kàddoom di yeesal nuyoom ci ñëpp di yëkkati kàddoom di yeesal cant ci ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp cant gi nag dana koy tàmbalee ci sëriñ Seex Fatim su na ko tuddee rekk bokk yëpp dugg nañ sët yëpp dugg nañ taalibe yëpp dugg nañ kon noo ngi leen di sant yéen ñëpp noo ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci taxawaay bi ak taxawaay ya ko weesu yëpp rawatina nag taxawaay bi nu am ci liggéey bii jàll nga mooy kër gi Cheikh Moustapha doon sëñ Mourtala am sëriñ te kilifa yii toog bi ndëggal li jóge na ma ko jàppe nu jàppe ko noonu na ma ca taxawee ñu taxawee ko noonu pas-pas ba ma ca am ñu am ko noonu ittee jama ca am ñu ama ci ba amatulum xëy amatulum ngont seen lépp di liggéey bi ba mu sotteeg jàmm sëriñ Cheikh ña ngi lay sant di sant mbooleem njaboot gi yëpp di sant yi fédération bi ak mbooleem daaira yu ne ci réew mi ak bitim réew gis nañ Pastef bin jox ndigal li ak itte jin jox ndigal li gis it jëf yin ci def ndax wax dëgg yàlla loo xam ne ña ngi ko doon natt ci ñaari at mujj ñu koy natt ci ci ñetti at mujj ñu koy natt ci ñaaraat at mujj ñu doon ko natt ci ñetti at mujj ñu natt ko ci juróomi weer baa la ko manqué loolu xam na ni pasteefu taalibe yi ak seen jëfa damay wax nag toujours ni am na rek ñu ma doon nuyu tey jóge ndar ma ni leen ab taalibe feek bi ngi def lu man dong di ca yam ci ñiy yéex xam sëñ Tuubaa lay bokk dangay def loo mënut te nekk la la la war te yaakaar ci sëñ Tuubaa man noonu laay doxe kon noo ngi leen di sant ci doxeen wu rafet woo wu ngeen ànd ak noonu ndax lu ko bëgg bëgg bëgg bëgg te buñ gestu woon gis ñu ko àndal dana metti fi noonu lool waaye nag saa yoon gestoo gis ñoo xam ne ñoo ko gën a bëgg ba sa fu toll dañu fakkatal muy seen jëmm yi seen seen faatu kon ñoo ngi leen di sant ci doxin woowu ak ci taxawaay yi ak ci pas-pas boobu bu jëkk nag damaa am nu ma daan dundee waaye léegi loolu tooy tolluwaay la woon waaye romb naa ko léegi dama daan ne fu ma masaa nekk ci ndigal yu mel noonu ku ma ca gisut dama yàkkamte laa gis ba xuloog yow waaye léegi nag bu ma nekkee ci ndigal lu mel noonu ku ma ci gisut bu ma la gisee su ma yoree lu ma la neexale dama la koy neexale ndax damay xam ne yokk nga saaw yiw ndax sëñ bi lu mu bëgg dana sotti lu mu santaane dana sotti da lépp tax ndeke kon ki yokk saw yiw ëpp naa ko loolu ko koo war di neexal tey awma itte ci diw def na ca diw ñëw na fa li ma am itte mooy sëñ bi am lim bëgg am na ko kon sant na ñëpp bàyyiwun kenn wallaahi góor ak jigéen mag ak ndaw ahlu rijal gépp ñoo ngi leen di maase sant di leen gërëm te di leen ñaanal tey ñaan sëñ tubaa nag taxawu ñëpp taxawu sayir ak baati ñaan sëñ tubaa taxawu leen yéen ñëpp taxawu sayir ak baati bëgg a wax ci mariirandoo ak yées mariirandoo mooy ki nga xam ne dafa tuddee ab boppam ab taalibe fu mu toll di laxasaay du yor yu jikkooyam te du déglu ndigal du jëfe ndigal kooku kenn génnewu ko ci tali moo génn boppam mooy ma riirandoo ma riirandoo nag bàyyi kook yées it nañ ci yàlla musal ndax képp koo gis mu yées mooy yées ci bokkam mooy yées ci kër gam dëkk famille ba mu nekk moo fay yées dayira bu mu nekk moo fay yéef kër gu mu nekk moo fay yées réew bu mu nekk ku kuy lim ñuy yées boole ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu teewee ci kër gi ban yëg-yëg lan nga gis. waaw fii daal rek. baax. di wax ne bi dañ koy dund ndax xam nañ ne moo ñuy dundal waaw il faut nga am ñuy wax fitra maanaam xalaat la yëg yëg-yëg boobu lay am mooy am taalibe mi ngi jëfe tey fas yéene tàmbali ndigalu sëriñ ndigal loo xamante ne nii. la di ay kilifaam yoo xamante ne nii ci Serigne Touba lañ ko jëlee yëg-yëg boobu lañ am fii teew ci barab bi nag daje feeg ñoo xamante ni dañoo bokk pas-pas bokk àqida muy waa kër Serigne Cheikh Ndiga Fall ñu bokk fenn fu ñuy doote di bokk fenn fu ñuy sotti moom ak suñu jëwriñ Cheikh Ndiaye Seck gëm Bamba doonuñu ñaar kenn rek lay doon te loolu njaboot bi mën nañ ko seet te daal béykat yi lu ma lay wax mooy santat nañ bu baax wax dëgg yàlla dégg la ñu ànd jërëjëf sëriñ waaw ndax yéen euh, dañ naan benn bis ngeen am muy weeru koor weeru koor yéen nan la mel ci yéen waaw weeru koor ni mu mel ci ñun mooy euh, li ñu bi jàngal ci ndigal mooy sëriñ bi bu la digalee rek wàccal sa mu wàcc daal di jóg euh, daal di jóg defe ndigal li ndax ndigal kat boo ko buñ la ko digalee nga def ko gaynde boo ko bu dee gaynde la boo ko songee xar nga fay fekk waaye suñu la digalee nga song xar ngay xëy yar yi soo ko songee day na wax la yëg si mbir mi mooy la ñu daan yëg démb bëgg démb rek aqiida la pas-pas la boo xamante ni mi ci lu buy rijaal mooy bu sëñ bi soxlaa nga takk sa ndigg boole ñàq boole ñukk boole ñukk ñàq ak ñukki nag dafa am ko ma ko laaj léegi ñu naa ko tekki ndax il faut ñu laxasaayu liggéey ba am wërsëg il faut itam li wërsëg woowu ñu ñukk ko jox ko bi buñ koy yóbbu itam buñ toggee ndox yi def ñu war a def yëpp ba pare il faut il faut itam ñu ñukk buñ ñukkee il faut ñu ñaq mooy ñaq ñukk si ñukk ak ñuqi loolu moom buñ la leen tënkal liggéey bi loolu nag bu jaamu yàlla buñ mën a triser jaamu yàlla bu ibaad la bu ne mën nga koo triser waaye jaamu yàlla gii ñu def kenn mënu koo triser ndax li ngay ñaq mënoo koo triser li ngay génne sa poche mënoo koo triser en même temps tam li ngay jëf fonk ko def ko ko war a demee muy lu mel nii te doo lépp nga boo ko bëggal njabootu Serigne loolu itam maanaam lu ñu mën kon jàpp nañ ni islam bu mu teg jàkka boo ne leel benn benn miskin nga leel benn miskin euh, moo gën a tabax junni jàkk ak ak jàkka ni mu toll ci islam kon nga xam ne liggéey bi du ko taw kon nag ñu ngi ñaan rek dugg ci ànd ci suñu kilifa yi ñu yàgg ñoo jiite yàgg ñoo taxaw yàgg ñoo liggéey barke seen xam Marie Diallo ko si ndogu yi. maanaam yëg bi may rek mooy yëg-yëg bi nga xaay nii samay maam moom lañu waaw di maam Rijaab bi muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek ba jeex di tàkk. waaw am di laa tudd Amady Dieng waaw comme ni ko suñu jëwriñ ji waxee rek waaw ñun fii moom lépp rek comme ni suñu maam doxee ak suñu papa doxee woon rek dana ko fas yéene defee incha allahu rabbi waaw ndog yi moom chaque année chaque ba koor gi jeex bu soobee yàlla waaw deen bàyyi suñu yitte yëpp waaw ba keroog